asalaamaaleykum wa rahmatullah ci tuuru euh, directeur généralu Expresso Sénégal ak délégation bi mu àndal yëpp ñu ngi sant euh, waa waa Touba ci dalal gi ñu dalal tey di jiitale sant bi ci sunu xalif Cheikh Al Mountakha Bassirou Mbacké di ko jàllale ci euh, porte parole bi Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké di am contentement nekk fii tey Touba représenté Expresso l'école coloré ndax chaque at ñu ñew def ko di ñaan yalla bu yalla bu mu doon suñu mujjantel visite te di ñaan suñu borom tamit li ñu mbébét ci Touba yalla nako yalla motali ci magal gi di ñew ak euh, euh, at yi di ñew tamit te xam expresso jégué na Touba ci fan yu bëré jégué na client Touba ci par rapport ak ay client yi fi nek jégué na Touba tamit ci la ci ci ci mbiru diiné bi ñu bokk ñun ñëpp te ñi ngi feddali waat dal coloré bi di di contane lool ci dal bi tay di sant ñëpp.